برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان jox ñu ñuy naan sant yàlla bu baax di julli ci sayiduna muhammad bam ñi defee jullit ñu nangu ko di jaamu borom bi di ko ñaan mu nangu yal yàlla nangu suñ jaamu bi xormati rasulillah jaam nag moom li ko war su ci nee li ci des daf ko war a bàyyee borom bi borom bi nag mooy seet li ko neex ndax koo xam ne yow ba ñuy ba ngay juddu kenn tàgguwu la ba ngay ñëw itam kenn waxut na tey ngay ñëw wala suba lépp wóola ci yow xamoo ci dara borom bi moo xam lépp dama ne teg la nag ci siraatal mustaqim borom boobu moom la ñuy ñaan yàlla yàlla déggloo kenn mooy borom bi bañ topp ko ba lépp loo xam ne suñ ko jaamoo rek borom bi mën naa nangu ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla ñu yàlla may ñu nangu waaw imaam Seydou Cissé de doomi Medina Baay Ñas la dëkk Medina Baay jàngee Medina Baay lépp lu mu xam rek Medina Baay la ko jànge ci ron Seydi Ali ak ca keppaari Cheikh Ibrahim muy waadee ka firi alquran yàlla dimbale ko muy ràmba ba agsi fii nefi fi imaam nekk fii ci cité de eaux imaam ratib yàlla dimbale ko waa Nord Foire itam ne ko yaay suñu imaam ratib mu boole ñaar yooyu yëpp di ko jéemantu pour teg ko ci yoon su jullee àjjuma ji ñaari àjjuma cité de eaux dem Nord Foire julli fa ñaari àjjuma noonu lañ koy awantoo suñ naay bi dimbale ñu ba waxtu waxtuñ absenté ci beneen juma rek ñu mën a wuutu ñun ñooñu ci juma jooja yàlla yàlla na yàlla dimbaleen teg ñun ba ñoom ci seen bopp ñu xam ne noonu la demee ñu topp ko bi xormati rasulillah njabooti baay gi nee la Syekh Ibrahim radhiyallahu anhu firi alquran gumi def mangi tok toog su koy def ci mbar mi mangi tok gonela waye mangi tok dama ne xam gi mako xam manuma ko wax ci benn waxtu manuma ko wax itam ci benn bis ndax dafa bari lum tuuti tuuti nekk naag moom fukki at ak ñett yu ma xàmmee wala ñeent yoo xam ne lépp lu muy def ci diine ji rek maa ngi koy gis su génnee ci néegam jëm jumaa ji maa ngi ci gannaawam su duggee ci jumaa ji maag moom ak ñëpp ci jumaa ji dama ne kooku xam naa ko xam boo xam ne lépp lu mu ci bugg a wax rek mën naa cee wax lu bëree bëree bëree bëri moom nag génn na àddina mat na léegi ñeen fukki at ak juróom al premier xalifaam moo Cheikh Abdallah mu topp ci Seydi Ahmed Daam Cheikh Ahmed Tidiane moo ci topp yàlla yóbbu ko ci fan yi yàlla na ko yërëm yàlla na ko waa waajuram dajale koog haj abdallah dajale kook sëñ daam ñu sukk ci seen ron waajur ci kanam sayiduna muhammad cheikh maahi mi nga xam ne mooy alxalifa ci jamono bii ñu toll xam naa ko miin naa ko xam naa ko bu baax ci am xam-xamam xam naa ko itam ci am fulaam ak teeyam xam naa ko itam ci dalam xam naa ko ci itam képp ku ko yëkkati dara du ko fa taaj lu may jug ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla yàlla dimbale ko ci yen bii yàlla yen ko yal na ko yàlla def bi xarmati rasulillah kër Cheikh Ibrahim moom dama ne falaa dëkk falaa amee soxna sama kër a ngi ci wetu jumaa ji dama foofu xam naa ko macha allah xam naa ko lool lool luñ ma ci laaj rek su ma ko mënee tontu rek danaa ko tontu alaaji ibrahima daf dee firi alquran su génnee biir néegam ci mbaar mi lay installé firi alquran su paree ci ëttam ci biir néegam lay jàngale lu ko dalee alviya junney bayti la maxtaar mii nga xam ne doomam la ñoom Seydil Muntaqa doomam yu mag yi yëpp dañu dem Qahira jàngi waaye suñ ñëwee moo leen di jàngalal boppam ci biir néegam noonu lay jàngale jàngale bi nag ci Medina Baye Amadou Thiam la Seydi Aliou Cissé jàpp Baye Ousmane Fati Pa Kabir ñooñu ñooy boroom xam-xam yi nga xam ne ñooy jàngal nit ñi téere yii nga xam ne moom la nit ñi jëfandikoo ci lu ci lislaam bi dama ne ñooñu ñooy jàngale topp ci gannaaw Alaaji Ibrahima lu mu leen digal ñu topp ko lu leen tere ñu bàyyi ko ñoom ñu nag képp ku am xam-xam ci Medina rek ñooñoo la jàngal ñu ngi ñaan génn nañu àddina yàlla yàlla yërëm leen yàlla xaare leen aljanna def leen ñu ne ci keppaari Alaaji Ibrahima mën naa ne yàlla na ko yàlla def Baay dafa jël fukki xutba ak ñaar weer wu de amna khutba bo xamne mom lay khutbaaye bam genné adina nak ba légui khutba yum mu doon xutbaa kenn du yéeg ci kaw minbar bi di khutba benen khutba lumay khutba mi ndax fukki weer ak ñaar yi taxaw ci at mi daf ko defal xutba alhamdulillahi alladi manna alayna bi wujudi لله الذي آخى بين أرواح وأرواح الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للمتقين ba fukki khutba ak ñaar mom la nit ñi khutba kep ku bok ci mom khutba yoy mom ngay khutbaaye ndax lepp la ëmb digal nit ñi ñu ragal yalla top yalla nek ak ki nga xamne moy kan moy sayyidina muhammad ci ndigalam mosuñ ko genn top nak ci ndigali cheikh ahmad tijani mi nga xamne ñun ñi ci tariqam lañ ne muy tariqa boo xam ne foo ko songu rek foo ko songu rek alquran ay génn ñu ngi ñaan suñ borom mu yokk suñu leer ci loolu bi xormati rasulillah Sénégal mbas mi Sénégal indiwu ko fi yàllaa ko fi indi jëlee ko ci yeneeni réew yu gën a kowe Sénégal Sénégal yàlla jox ko nag cër boo xam ne àddina bi yëpp yëg nañ ko àddina bi yëpp jàpp nañ ko ba mu déggee mbas mi ci la jug fu teeku ku mel ni président de la république joxe ndigal ñu nuñ koy moytoo képp ku ci bugg a mucc rek niñ joxee pour ñu moytoo ko soo ci nee rek yàlla mën na laa dimbale ndimbalal yàlla nag fu ne lay jóge takkal masque lañ wax sooy génn raxasu ñuy soriante même jumaa yi président de la république terewut buñ julli de waxut ne tëj leen jumaa yi bu kenn julli julli wëttu wéer gar wéeri wéeri jaam yàlla yi moo waral mu ne suñuy julli nañ soriante loo rek la ci miin pour lan pour nit ñu mucc ñu ngi ci yàlla yàlla musal ñu ci kem muccam bi xarmati rasulillah mbas mi daal takk masque laal zel raxas say loxo soriante moytu daje yi waxut na bu kenn daje waaye daje yi nañ ko limité te nañ soriante loolu la digle ñu ngi ñaan yàlla yàlla yàlla dimbale ko ci lim yéene réew mi pour ñu mucc ci bi xarmati rasulillah ñaan yàlla mu defal ñu tawfiq defal ko réew mi defal ko kilifay aada yi ak kilifay diine yi ñu déggoo pour ommat réew mi mu jëm foo xam ne njëriñ la ñeel doomi aadama yi dëkkee réew mi président de la république moomul réew mi moom moo jiite réew mi ñun ñii dëkkee ko ñun ñoo moom réew mi ñu ak moom yàlla def mu jiitu moom teg li nga xam ne mooy jëriñ nit ñi ci biir réew mi loolu rek mooy war a garam mu ngi ci yàlla ko yàlla dimbale ñun ñii nefi fi yàlla ñu diggal loo xam ne suñ ko toppee mucc am yàlla mën na ko yàlla na ko yàlla def bi xarmati rasulillah kon ñu ñaan yàlla yàlla defal ñu tawfiq yàlla ñu ko yàlla defal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 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاشا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون والله الذي لا إله إلا هو علم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس سلام سلام مؤمن مهيمن عظيم جبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو العظيم الحكيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اغير مغضوب عليهم ولا الضالين برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نيوينا